ñu ngi am mbégte dalal Thierno Lo moo jiite APD nekk itam euh, membre ci benn Bokk Yaakaar conférence des leaders notamment ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la monsieur le ministre atu maa ngi lay remercier may ñaan yàlla na kàddu bi may joxe fii yàlla na nekk kàddu boo xam ne bii kàddu bu jub bu nit mën a dégg. te indi jàmm ci biir réew mi. ñu tàmbalee waxtaan wi ak seen ndaje mi ngeen amal yéen waa Benno Bokk Yaakaar ci ajjuma bi doon waxtaanee euh, xëy na ponk yu bari ci réew mi mais ñu ne li ci gënoon a fës mooy candidature Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle bu 2024 kan mooy nekk candidat bi ak naka ngeen ciy demee ndax mën nga ñu ñëwaatal ci li gënoon a am solo ci seen ndaje mi ci waxtaan yi. Fatou li ma la bëgg ma soulever d'abord mooy que ne suñu réunion du réunion ñu woote woon pour di wax affaire candidature. candidature soit muy bu président Macky Sall ak candidature ku mun di doon affaire candidature tax ñu woon di daje ndaje mi li ko waral mooy euh, li Sénégal yi yëpp war a seet mooy benn bokk yaakaar dafa nekk ndaje boo xam ne bii ay sénégalais ñoo fa nekk yoo xam ni am nañu jaar-jaar am na lu ñu tekki ci réew mi am nañu expérience donc ñooñu bu ñu àndandoo di gérer réew mi pendant au moins ay dix ans bu ñu toogee ba nga xam ne ñu ngi bëgg àggaat ci tànnaat ak ci seenub ànd seen bopp war nañoo mën a toog def benn ndaje ak ki nga xam ne bile moom la ñu jiital ñu toog ak moom def évaluation d'abord li mu jot a liggéey lu ci baax ak lu ci bon xool ak aussi situation situation bi Sénégal toll te ñun ñii ñëpp ku ci nekk nga am ci responsabilité ñu war ko waxtaanee moo tax démb bi ñu tasee euh, ma ci euh, féliciter le président Macky Sall parce que ku am dal la ku am déglu la mais xam na ni ay responsable la taseel yoo xam ne ku ci nekk mënoon naa jóg tey laaj réew mi mbaa mu toog ci place bi mu toog moom kon ñooñu bu nekkee ak ñoom war na leen a jox respect war na leen a déglu ñu wax ko seen xalaat ci réew mi démb def na ko moo tax it dégg na lu nekk ci biir réunion bi mais fi mu toog gisoo ko mu raf benn yoon gisoo ko mu dog kenn benn yoon déglu na respecté na nit ñi foo doon wax moo tax bañ fa demee waxtaanee nañ fa bilan boo bii ñëpp ko xool ñëpp ñi nga xam ne bi nekkoon nañ foofu di ay leader di ay militant gis nañ ne président Macky ak loo ko mun di wax mm. ci bilan bi kenn du ko ci attaqué def na ci lam ca war a liggéey na beneen bi ci fàcc bi nit ñi ñu ñun tegal ko ci biir ci taabal bi ni coalition benn bokk yaakaar di doxe mm. manque de générosité bi nga xam ne bi am na ci biir coalition bi manque de dimbalante bi ci nekk ak manque de jàppale ndaw yi ci nekk ak ndaw yoo xam ne ñi président Macky Sall tànn mm. naka lañ war a taxawee ci seen ay gox pour jàppale ndaw yi ubbi seen i téléphone di leen déglu partage ak ñoom liggéey bi muy liggéey ca soxla suñ mun a faj foofu ñu faj ko bu ñu buñ a faj ñu àggale ko ci moom. Hmm. unanimement décrire nañ ko foofu. Hmm. bañ ko faree li jëm ci gouvernance bii. rapport bii nga xam ne bi moom la ñëpp di coow. dañ ko fa discuter bañ ko fa discuter la nga xam ne bi lañ fa jàpp ci wax ji mooy dañoo dénk réew mi ñu yor loo xam ne ñëpp ko bokk mu am luy deniers publics kon kuñ ko jox. war nga koo sàmbar ca nam gën a rafete et lañ fa wax mooy kenn du fi protéger wu fi nit kenn jiñul aussi nit mais rapport bi li mu génne ca mu war a dem ci justice nafa fa dem justice daf ni unanimement amul kenn ku fa nekk ci réunion ba démb xas fa waa cour des comptes mbaa nga wax fa loo xam ne li mooy bu mu dem mbaa nga jéem a layal kenn dañ ne lii du yoon nañ ko yóbbu ci yoon yoon xool lam ciy def néew ñu diw sàcc na néew ñu diw lekk na dañ ne rapport bi nee na lii mm-hmm. lii la recommandé nañ ko yóbbu ci yoon loolu ñëpp ko saluer mm-hmm. ñëpp fa mettre l'accent ne lépp loo xam ne lii dafa nekk ay mal gouvernance mm-hmm. di war a yàq bilan wu président Macky Sall na ko président xool ñi mu dénk nañ ko xool pour que ñu jéem ko jubbanti ca bañ a defati lu mel noonu. waaw mais du rapport bu njëkk euh, indi coow ndax rapport OFNAC yu bari déggoon ñu sax par exemple dossier yenn yi moo ci teg concam euh, Seynabou Ndiaye Diakhaté ak Nafi Ngom Keïta ñoom ñëpp joxoon nañ ay rapport procureur mais nee nañu amul benn suite te loolu tam nit ñi seetlu nañ ko amul kenn kuñ topp tey ci réew mi ci wàllu luubal te ay luubal yàgg nañ ko fi dénoncé ci ay rapport est que tam xëy Euh, côté boobu bàyyiwu leen lu bari mu jàll yéen ñi fare ci nguur gi. non xam nga euh, bàyyi mu jàll ñun mënuñu ñu ko def parce que réew mi dañ dem ci élection bi ñuy dem ñun leen tànn leen kan ngeen bëgg mu jiite ko ngeen tànn ne président Macky Sall leen jiital. moom noonu jox dogal muy nommé ku ko neex ak di dindi ku ko neex moom la moo ñuy moom moo moo ñuy laaj ëllëg. liñ ko dénkoon noom ko yore ñun dañoo ñëw rek nekk ay sénégalais ñëw di ko jàppale kon ñun amuñu bu la rapport bi ñuy teg loxo bu dul tax loxo bu ñuy yóbbu parce que loolu yoon mayuñu ko mën nañ nag de façon individuelle lu xew ñu am ci suñu xalaat moo tax bi ñu demee foofu kenn wax looñu wuñu fa ay rapport nag ak mm. rapport keneen mm. wax jafa mooy li nga xam ne moo lëmbe réew mi ci fii ñu toll mm. waxtaan nañ ko fa wax nañ lañ sama wax quant à nag sama position personnel ci li ngay wax ci affaire ay OFNAC man lenn laa wax muy principe boo xam ne dama koy dégager. mooy li ñëpp bokk nañ ko liggéey pour ñëpp. li ñëpp bokk ku ci jël loo ci war a jël buñ ko sàmbaree gis ko nañ la teg ci yoon. kon man nekkuma ci rapport mais gisoo ne impunité bari na ci seen régime bi ah, li nga li ngay xamee itam dama koy wax toujours di ko répéter mooy nit ñi il faut que ñuy def ay différence président la république yi fi jaar yëpp di Ablaye Wade ak Abdou Diouf ak ba ci makki sàll mii ñun ñoo leen may ne leen IGE bu meloon tey comme Cour des comptes kon coow boobu du am xam nga de des comptes kenn mënta tey rapport da koy jël envoyé ko bu fekkoon dañ génne woon IGE. mu ngi ci site internet am boo demee ah, lépp la fay ci tey danoo génne woon IGE. Mm. président de la république ne ko def comme Cour des comptes. Mm. kon benn coow du am mais liñ may président yëpp yëpp yëpp mooy yaay yónni IGE. Mm. UG lu mu indi. boo ko xoolee yaa cay def la la neex. su la neexee nga def recommandation. ou mm-hmm. bien bu la neexee nga classé. Mm-hmm. comme nag ñun ñoo ko mayee. ba président yi di ko def ci dindiwuñ ko nan nangu lu metti metti bu ko suñ ko ñu nangu ko parce que république. Mm-hmm. noonu lay demee mi ngi mel ni justice. waaw yoon rek mu jox la tey bu baax. ëllëg mu jox la bu baaxut da nga ca war a confirmer wu. xam nga yii ñu wote assemblée nationale lu mel ni ay parrainage ay affaire yooyu am na ñoo xam ne d'accorduñ te woon c'est normal ñu exercer seen liberté ne d'accorduma hmm. mais buñ ko xisee voté muy loi ak lu metti metti metti metti day tegu sa kaw kon IGE yéen a ko taxawale noonu hmm. moo tax muy doxe noonu hmm. of nag Seynabou Ndiaye madame Seynabou Ndiaye Diakhaté nee na am na ay rapport yu mu jox procureur man gisuma leen liiruma ko mais xam naa ne bu ko waxee joxe na ko bu ko joxee procureur ci boppam moom mooy décider day def suite ak lu mu war def. kooku mooy mission bañ ko dénk. Mm-hmm. du ma ci dugg mais man li ma bëgg wax mooy képp kuñ def rapport bu mel noonu ba joxe ko. Mm-hmm. na ko procureur doxal pour que ñu dem leeral ko yëpp xam ne rapport bi ñu joxe woon kat. Mm-hmm. nii la tëddee nii la tëddee nii la tëddee bu ko defee coow du jib. kenn waruñu fa ay rapport OFNAC ak. man mosuma gis sax ab rapport OFNAC. xaw damay dégg ne yóbbu na rek mais gisuma ci benn mais bii ni nga ko Cour des comptes defee. suñ ko ni defee woon. soo ma ci laaj sama xalaat ma di la ko wax. alors ñu ñëwaat ci mandat bi euh, wax ngeen forcément ci benn bokk yaakaar day yóbbu candidat wala ndax parti ci nekk yëpp dañuy am candidat am déet benn candidat ngeen di am 2024. man daal li ma la bëgg a mën a wax muy lu leer nañ. mooy bi ñu defee ñun diagnostic gu bilan wu président Macky Sall. Mm. ñu apprécier ko positivement. yiñ ci war a rectifier nit ñi jël nañu seen i kàddu wax ko. li nekk ci kanam. pour que mu gën a régler programme assamni wax nañ ko wax nañ fa aussi ne du liggéey liggéey bu toll nii bii mu liggéey ba pare ñuy bàyyi ay cas de détournement yu ndaw naan ak yeneen yoo xam ni day ñëw di yàq li mu liggéey ca ci kanam xool nañ ne gisuñu fi benn alternative ñu taxaw yor benn programme bu taxaw bu nit mun a teg bët yoo xam ne nee nañ ñii mën nañoo remplacer président Macky Sall. kon moom ngeen bëgg mu lañ fa gis lañ fa gis. Mm. mooy nit ñu taxaw. Mm. ne dañuy jël bi par nit ñu taxaw bu nu xëyee débat yépp xaste saaga xaawi sutura doomu ra doomu jàmbur dem ba indi ay problème de mœurs mu nekk li Sénégal yi yépp war a waxtaane loolu lañ fa gis fustige ko bañ fa toogee nag pour ñëw ci li ngay wax nii ñëpp fa nekkoon ñëpp sans ñëpp ñoo gis ne président Macky Sall mii am na bilan bu mag bu mu liggéey ci biir wax jalaa yam de ci biir luñ fa yam ñëpp fa gis ne tey jii su fekkoon taxaw na foofu yëkkati woon loxo maamu waxoon ko fa gars yi dinañ d'accord pour que mu nekk seen candidat loolu. pourtant dégg nañ fi gars yi ne ñi ngi doon ñaaw amul kenn foqale bi APR wane ne Macky Sall lay seen candidat mel ni kuy bëgg xëcc yi fi seen boor loolu da ko doon wax mais du waa benn bokk gis démb hmm. amul kenn ci ñoom kenn kenn kenn kenn ku fa xas nit parce que wax na ne président Macky Sall daa war a nekk candidat ou bien ku fa wax ne man bëgg na maa nekk candidat la ma fa gis man te ma déduire ko. nekkul ci suñu résolution de. Hmm. te defuñu ko fa débat mais boo dégloo. waxtaan ensemble. wax ji daal looloo ci génn boo génnee mooy bu président Macky Sall yëkkati woon loxo am foofu. ne leen est-ce que bëgg ngeen ne ma nekk candidat foofu la ko gars yi di def. benn parti wane wu fa ne dafa bëgg am candidat boppam. bu ngeen déggee benn parti bu nekk ci benn bokk yaakaar mu génn ci mbedd mi di wax naan ci réunion benn bokk yaakaar ba mu nekkoon. ma nga fa toog di wax président Macky Sall bii waxul waxul waxul waxul waxul waxul ki ki d'accorduma ci pour mu nekk candidat dama la wax ne d'accorduma ci. Hmm. kenn wax fa ne d'accorduma ci. kooku ne ko wax wax nga lu nekkut hmm. amu fa la fa am te war a am ci réunion bu nekk am na ñu fa jëf yenn intervention benn ma ñaari nit hmm. am ñaar ñu fa jóg ne leen loolu àgguguñ fañ ko war a waxee luñ doon wax dégg nga non am na ñoo xam taxaw ñaari nit par exemple taxaw ne man euh, candidat ma président Macky Sall waxal léegi sa sa sa candidature bi ndax da nekk candidat ndax da ngay nekk candidat du nekk fii am ah, nee nañ de ci nii noonu am ñu jóg foofu ne loolu kenn waru ko fee commencé sax ubbi waxtaan hmm. ñu jox leen dëgg président Macky Sall waxu fa benn yoon te lam foofu sax moom précisé mooy dellu siwaat ci position bi mu nekkoon. nii wii nii non. nii wii nii non waxu ci tey waxagu ci. yéen loolu gêné wu leen. mais déglul déglul xam nga moom day wax loolu. Hmm. mais am na ñoo xam ni ñii ñoom nii wii nii non neexu leen. Hmm. bu leen sañoon bu ñooñoon day réunion demb bi am na ñoo xam ne bu ñu sañoon démb dañ ko doon décider hmm. mais réunion ba nanguwu ko moom waxu ko fa. ca dul wokk bokkul woon ci suñu ordre du jour mm. du ñu dem ba agsi méridien président war a def réunion mm. nit di dugal un élément nouveau ci biir ordre du jour bi loolu tax ñu woon a jóg mm. yéen nag taskatu xibaar yi yéen loolu dong moo leen intéressé pour ngeen di ko wax mais bu wax bi jotee dinañ ci wax bokk boo benn bokk yaakaar par force day am candidat candidat bi mu nar a am mooy président Macky Sall mii ak bilan bii bilan boobu ci boppam moom la gaa yi nar jël mais dañoo àggugul te fañ ko war a defe ca moom ci boppam moo leen niwul bëgg na maa nekk seen candidat pour le moment mais bis bu ko waxee mooy nekk le candidat de Benno Bokk Yaakaar incha allah kon kay yëf yi c'est déjà acté. acté moom mi def. candidat bala moo acté. Ah. Thierno Lo boo ko bëggee def président du ni man d'accord naa pour euh, nekk candidat ah. ngeen daal di koy soog euh, euh, kii. Ah. nu mu tudd sax noonu ngeen di def jël. investir investir ko mais bu Thierno Lo toogee ne man waxaguma mais da ko mën a forcer ne ko di nga wax mais loolu mooy problème bi mais boo xoolee. lii mais dañoo njort ne dafa naka dem bu ñu xoolee. yi fi ni muy demee nii moo fi waxoon ne du defaat beneen candidature loolu tam problème. éthique waa waa Benno Bokk Yaakaar waa Benno Bokk Yaakaar amul njort ci seen biir ñoom amul njort. Hmm. ñoom dañoo bëgg président Macky Sall nekk seen candidat hmm. problème bi ci président Macky Sall la nekk. moom ci boppam moo naan eh bëgg naa dem. Hmm. buy ne bëgg na dem suba gars yi di ko investir su mais est-ce que war ngeen constitution bi nga xam ne bi moom ngeen wax ne moo guide nit ñi du moom moo ne yow am nga droit marche yow am nga droit lii am nga droit lële am nga droit lële constitution boobu du moo taxawal conseil constitutionnel moo ne boo bëggee nekk candidat lii ak lii ak lii ak lii ngay jël dugal ko fii conseil constitutionnel jël ko soo bëggee nekk président conseil constitutionnel mooy afficher liste na nangu naa sa candidature boo demee ba sénégalais yi fal la conseil constitutionnel moo naan kaay nga présenté serment ci sama kanam yëkkati sa loxo waat soo ko deful doo fi nekk président du Sénégal boo defaree nga def ko waaw léegi bu fekkee dañoo nekk ci fànn boobu te ñu gisoon benn exemple bi président ab Ablaye Wade soxlaa mandat le président Idrissa Seck dafa dem jëli ay borom xam-xam ay kàngam ci bitim réew indi leen président Ablaye moom tam jël ay kàngamam yéen Sénégalais yi nekk ay activistes ak opposition ngeen taxaw si benn camp daal ne du fi amee yi ñuy indi constitutionnaliste yoo xam ne neen du fi amee kii ne dina fi amee président Wade joxoon kàddoom ñu ni ko wax waxeet mais tërwul dañoo dem ba Maodo Diop gaañu ci ay ñu bari ñu dugg leen ci kaso mais ba conseil ba ba déposé jotee président Wade daa dem déposé conseil constitutionnel affiché. mais ragaloo nànk rek ñu teg ko foofu gars yi dem déposé seen candidature dem élection gagné ñoo prêter serment ña woon perte seen bakkan la même chose nag fi ne nii moom ngeen di junj. Hmm. junj bi ñu koy junj mooy li société civile nga xam ne bi maa ngi leen di. di xalaat jàmm gën troisième mandat mooy jàmm gën troisième mandat du wax bu société civile war a ànd. jàmm moo gën lépp mais gënul li droit permettre bu droit mayee nit pour mu defar candidature am da koy def soo bëggee xamit bàyyil ba mu àgg ca ka war a àtte muy conseil constitutionnel mu àtte mais doo def loo wax boo xam ne bi yow insurrection ngay posé parce que yaa naan kii. bu ubbee gémmiñam ne dafa bëgg def troisième mandat taal leen dëkk bi loolu société civile bu ko wax manqué nga sa mission activiste bu ko wax manqué nga sa mission citoyen bu ko wax manqué nga sa mission parce que position partisane wërta mën a tax ba nga def luy taalum réew te du tere nit ki li mu buggee def dana ko déposer parce que ka war a atte ak guñ foofa kon buñ frayee ay nit ñoom la ñu war a juger au tribunal de l'histoire te ñoom la ñu war a traduire en justice c'est fini nii képp ku fi poussé à l'émeute avant la décision du conseil constitutionnel bis bu ñuy def l'état des lieux war nañ laa jàpp juger la parce que yow yaa poussé à l'émeute li ñu war a def dañuy bàyyi ba mu àgg ci conseil constitutionnel. képp ku conseil constitutionnel wax ne waroo mën a def candidat bis boo fi defee loo xam ne ay nit dañ ci dee ñu war a jàpp dugal ci kasu bi mais comme ne da dem da ngaa war a dem. constitution comme moo ñu tënk nañ bàyyi constitution bi mu wax. ku fi def leneen lu bi. bu nit dee ak lu am yaa ko jël responsable man je prends comme responsable de tout ce qui pourra arriver avant la décision du conseil constitutionnel képp ku taxaw pousser à la violence. mais yow tey boo doon digal président Macky Sall da wax na sàmm kàddoom wala na xool li mu bëgg a def mu def ko. man bu ma koy digal xam nga la ma koy wax. yow citoyen sénégalais nga sa wax bi ak waxu Thierno Lo ak waxu Fatou Thiam ak waxu Alioune keneen. Mm. amul amul sens. li am sens mooy le conseil di dogal. président Abdoulaye Wade ba mu fi toogee di wax wax wax. xeet balaa conseil constitutionnel kay moom mooy décider ndax day sàmm kàddoom wala ndax day dem. lu ko neex lay def loolu moom la engagé bu ko neexee mu ne du dem bu mu ne na mais ci diggante bi kàddu boobu mu wax amul sens même damay dem du ma dem mbaa damay dem amul sens. parce que on n'écoute pas la voix du président Macky Sall parce que su ngeen dee déglu ay voix wu président waaw kon léegi benn président bu toogee fi daal ne waaw léegi xoola yéen fal ngeen pour cinq ans. léegi man du ma def cinq ans yi bu ma liggéey ba cinq ans yi jeex sama bilan bu baaxee damay continuer waaw maa wàccul tey maa wàccul ëllëg léegi ngeen dem ba mandat ba jeex mu taxaw mu ni leen man ba ngeen may soog a waxoon naa leen bu sama bilan baaxee wàccu ma tey wàccu ma ëllëg waaw boobaa da ngeen jël parole boobu ne ko waaw wax nga dëgg de comme yaa ngi waxoon wàccoo tey wàccoo kon bul wàcc nañu wax di dëgg mm, kon yow da nga bëgg lépp tegu ci yoon rek dañ ko naan sa wax boobu nga wax wàcc tey wàccu ëllëg faale wuñu conseil constitutionnel bi mi ngi nii su fa sa candidature bi jàllul doo fi nekk président tey doo fi nekk président ëllëg lii mooy wax bi dina di wax yëpp yëpp yëpp bis bu ñu àggee ba jëm ci 2024 bu bëggee déposé candidature ñoom duñ ko yëg duñ xam fu muy jaar ba déposé ko dañuy toog benn jour dégg ñu ne déposé na candidature am nañu bu ñu affiché mu nekk ci ñu dem buñ ko affiché ci nekku ci ñu ne ko bokkoo hmm. nañ leen wax dëgg waaye Fat yow waaw comme boo xamee ne noonu lay demee waaw doo tax su mbokk taskatu xibaar yi génne ngeen leen nañ poser le véritable débat buñ poussé à ce que mu am ay émeute parce que lu nit dee dee dee dee dee du tere bu bëggee déposer candidature da koy déposer conseil constitutionnel moo koy validé xam nga wax bi du neex ñi contre président Macky Sall mais képp kuy républicain soo toogee ak sa juge de minuit ak sa xalaat di nga ne ah Thierno Lo mii de li wax du lu hmm. wax na dëgg droit bi rek la wax parce que morale ak éthique bi ngeen di wax amul validation juridique par le mu nit ki la. mais dañoo am justice wax ay règles. wax ay liberté kum neex nag sa liberté boobu nga exercer ko. mais on les au conseil constitutionnel de décider. mu décider jërëjëf amoon nañu mbégte dalal la ci waxtaan wi ñu ngi lay gërëm. man tam maa ngi lay bu baax baax baax di la remercier te di demander suma mbokk sénégal yi. ñuy bañ di dem ak émotion. bañ di dem ak position partisane mais ñu respecter texte yi nga xam ne moo ñu régir. ak suñu institution yi lu ñu dogal rek ñu nangu ko ci jéem a boole suñuy xal ak suñuy xalaat bëggante bàyyi iñaan gi soo ko commencé ci ñun te xam ni réew mi ñoo ko bokk ci ñun ñëpp ay mbokk lañu yàlla ñu yàlla defal jàmm